d'accord Dakar me dit que mon je soulignais un scandale d'Albo Khamantin, c'est à hauteur de 35 millions qui viennent de billets d'avion. 35 millions qui viennent de billets d'avion. Nous avons ay révélation fracassante la ñuy indi ci biir loolu nag kii nga xamante ni mooy Omar Sow di coalition jàmm ak njëriñ moom indi na ci réponse am jëmale ko daal ci li nga xamante ni maanaam di directeur de Dakar Dem Dikk énoncé na ko ginnaaw bu mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci billet d'avion à 35 millions amul benn sénégalais boo xamante nag mën na ko gëm neew ma mënul am mais man mënuma ko gëm tant que tegaluma ay firnde ay preuve yoo xamante ni ma xam compagnie bi ma xam ndax surfacturation wala surfacturation nañu déglu ji Omar Sow dellu si waat les fausses accusations j'ai entendu tout à l'heure le DG de Dakar Dem Dikk ne billet d'avion avion dañoo jënd billet d'avion 35 millions mais fen dafa war am harmonie dañ ko war harmoniser <laughs> parce que billet d'avion avion. Ah, de direction ak ministère yi ngay wax. lépp non non non dégg nga loolu billet d'avion ñu né 30 ben billet d'avion 35 millions. <laughs> mais fen day am harmonie. mooy non dama ne non déglu ma de. même bu leen yonne même sen kilifa. bu ko xam daf leen jàngal fen di leen yónni pour ñu fen mais bu ñu fen nañu xool nu ñuy fenee fen bi harmoniser ko. parce que lan loolu yëpp parce que lan fen nañ ba jël réew mi léegi ñu ngi fenaat pour jëlaat majorité à l' assemblée nationale. Mm-hmm. est ce que jotul aussi tamit sénégalais yi yeewu. xam nañu nekk xam nañu nekk dama ne. man <laughs> bu leen loolu bëgg naa xam ne woo ko <laughs> dama ne non man. dama ne nañ la fi sax. man amul neex nañ def. Eh. mais mais je suis prêt je me suis préparé. Eh, eh, mais man defe naa jour bi ñu téyee Bougane ñëwoo fa woon. waaw ñëw naa defar naa sama sac comme Bougane mais dëkk bi <laughs> dama fee juddu yaroo fi màggee fi jàngee fi tekkee fi am ay bàjjan am fi ay y am fi ay ay. am ay des de. te musuma fee def lu ñaaw tak soxna fu ma ko war a takkee juddoo fu ma war a donc duma ragal. très bien pour man dans le cadre des élections législatives. Mhm. dañu war utiliser ay armes conventionnelles. mais est-ce que vous pensez. les fausses accusations j'ai entendu tout à l'heure le DG de Dakar Dem Dikk né billet d'avion dañu jënd billet d'avion 35 millions. kon ñoko dégg ay depuis six mois avec le nouveau régime de Bassirou Diomaye Faye et de son on n'entend que des accusations qui poste direction yi ak poste ministère yi ku ci mêler dafay mel ni liñ la mon da nga donc pour justifier li nga xamante ne maanaam sa futur échec jëmale ko ci liñ la dénk lan nga koy justifier maanaam ay révélation ay scandale jamais de la vie nga prouver ko parce que taxaw ci Dakar dem dikk tey nga bëgg fa indi lenn problème ce Dakar dem problèmes, il amee problème un an, ni Pastef moo ko def problème ci biir ay manifestation am la et taalee ay bisu Dakar dem dikk ci manifestation am lañ ko yàq ko tey la ñu ci ay bus kenn mënu ko fa xayma jëmele ko dal ci li nga xamanteni mi ngi koy énoncer fofu ci ñi nga xamanteni moy ay employés yu fa nek jëmele ko dal ci ñi nga xamanteni dal manam moy ay chauffeurs yu ëpp bus loolu lu mëna nek nekk ndax té bus yi xeyna amna ño xamanteni ñoo dañ leen récupérer woon jël leen fa ñuy liggéey ginnaw nak sal nañu ay bus yi duñ leen dakk nonu parce que licenciement abusif lay doon donc dañuy tok bañ jëndal yeneen bus ñu jox leen ko wala ñuy def relais ak yeneen ñi nga xamanteni moy mooy chauffeurs yi donc wax jooju je crois que manipulation la ak euh, anticiper li nga xamanteni moy campagne bi pour merlo wat askan bi jëmele ko ci loolu muy kaddu yoo di Omar Sow dina koy indi manam révélation accusation Ken mënu ko gëm barki dembu gis ngeen El Malick Ndiaye jël na wàllam jëmale ko fofu nga xamanteni moy AIBD mais ci saa lañ ko daldi contredire ki di Doudou Ka indi ripostam muy contrepoint bo xamanteni kep képp ku ko da ngay xam Doudou Ka lu mu wax amna na Omar Faye leral askan bi dem ba gindiko ko en tant que ministre bo xamanteni xeyna peut-être amul vision wala li muy wax xamuko ndax te su demee ba ci ay contrats yo xamanteni c'est des contrats militaires estampillés manam des contrats civils estampillés secret défense ak contrat militaire xamuko mënul xamé lan moy chariot de sol ak ay chariot yo xamanteni ne hand landing la yo xamanteni ñom ñoy nek ci avion bi pour daal di assister li nga xamanteni moy dégol bagage ci avion bi je crois que gouvernement la dal bo xamanteni ni ñi ñi tabb ci yenn poste yi xamuñu luñ fay def motax tay ji ñu bëgg anticiper li nga xamanteni moy sen échec diko yobbu ci li nga xamanteni dal mën nañ ko tuddé ay révélation jëmele ko dal ci accusation mais je crois que sénégalais yi absorber nañu sen ay révélation absorber sen manipulation ba nga xamanteni après 6 mois ñom ñëpp doyal ci sen régime lu ñuy xaar ci yeen ngeen prouver leen que lepp lu ngi durant dix ans la ngeen concrétiser mon gën ngeen nekk ci li nga xamante accusation parce que billet d'avion à 35 millions ba ma juddoo ba tey maa ngi koy soog a dégg wër naa àdduna bi yëpp mais mbindeef mënu la fi billet d'avion à 35 millions soo si yokkoon tuuti sax mën a loué euh, lii nga xamante ni jet privé wala 35 millions bi da nga cabine ligue nga xamante ni maanaam business class bi de nga loué ba nga xamante ni kenn du fa toog yow kese yaa fay en tout cas muy kàddu yi nga xamante ni di Omar Sow indi au cours daal di koy teg ci table bi. ba tey suñu jógee foofu dañuy dem seeti ji ci ki nga xamante ni